mu ne xaw ma kuy wëli yu waaye xam naa wàlli yiw wàlli yiw waaw wàlli yiw mu ne xam naa wàlli yiw wàlli jiw yiw waxaama nag wàlli yiw mu ne boo wàlli yiw doo wax lu bon doo ko def ba nga fay jóge xaw ma nag kuy wàlli yiw waaye daal xam naa wàlli yiw waaw wàlli yiw mooy lii ngeen def wàlli yiw wàlli yiw Adama Lo moo ko wax jinne la daf ma wax daf ma wax bés na ma alaaji bu ma de man daal maa ngi jàppandi ci li óor aynu ba ba may gis wëril hay ni mu ne li óor aynu li óor aynu maa ngi ci jàppandi ba ba may gis óor aynu xëynu mooy bët mu ne li óor bët yi mooy jigéen ñi Sénégal àddina yi mu ne ñooñu daal maa ngi ci jàppandi ba ba nuy demee ni óorul hay ni kenn mënu la waxee ne moom ah kenn sëriñ daam daal jamono boo dajee moom ahaj malik lu mu xaat xaat mu sànni la bind loo yàkkamti yàkkam bërki dem ba dama ko dogale jox ko loxo di dem mu ne ma sëñ saako taxawal tuuti waaye ngóor su sant saako sama kàlla nag moo ma fi doon sonnal yóbbante ma bi yóbbante rek topp ci naan ma sëñ bi bu ko fàtte sëñ bi bu ko fàtte sëñ bi du ko fàtte ma ne ko du ma ko fàtte kenn du fàtte sa jabar kenn du fàtte sa sëriñ kenn du fàtte sa tur yow da nga wax ne ki nga ma yóbbante aadama la tudd waaw ki nga ma yóbbante baayam aadama la tudd moom nga wax ay situ la tudd te mu nga dëkk faas man aadama laa tudd sama jabar ji ma suul mu ngi tudd ay situ Cheikh Tidiane laa yaakaar te mu nga faas du ma ko fàtte ma ne ko du jaadu ku fi indi bàkkaar yàlla na ko yàlla raxas ba mu set tant bii nu ngi ko ronu ronuwaale koog saaloñ saaloñ saa moom bàkkaar la bëgg nag watkat bi ñuy wax maam yàlla wat noog saatug yërmandeem ba ñu génnaale ëllëg ay na li njéggal du noonu waaw kay nu ngi ko ronu ak saaloñ saa moom bàkkaar la bëgg nanu nag watkat bi ñuy wax maam yàlla wat noog saatu saa moom yërmande la booba ñu yeewoo bu ñibbi ëllëg yóbbuwaale neel yaa ñoom jéggal la ma ne nag watukat lu mu ñemeñ ñemeñ wateef tooyal bopp ba ndimbal la watkat biit lu mu mën a mën a wat saatu sa ñaw ak farasu ndimbalam la kon nag nun ñépp nu ngi yor saaloñ yàlla noo wat saatu sér mën la noo wate kon nanu jàpp fa ndox mu ñuy wax faatiya tooy loo ko fab saabu bu ñuy wax salaatu ala nabi raay si ndax bu saatu sa doyee duñ ko yëg te duñu ñàkk kenn ku ne na jàng faatiha ak salaatu ala nabi ñu dugg ci mbir mi daraje yonente bii tax ñu tànt ak sa jaam yi nga seggal sa bopp sànni ci ñoom liimaan boole ci lislaam ba defaale ci lihsaan ñu gëm sa jaraaf ju Mustafa mi nga xam ne ku ko gëm mucc roofaale ci cofeel képp koo xam ne lamboo na ci rëcc-rëcc boo marqué woon ba noppi ngir sag maandu yal nañ ko dabaatal faral kaka faw faw faw ci darajey rasulillahi ku ci yorit ba a jàngoro yal na ko yàlla saafara ku ci yor aw tiis yal na ko yàlla tegg maam yi dee yal na leen jéggal ñi ci kaw suufit yal na leen yéexee borom métier yi yal na barke seen métier borom place yal na leen ci saxal ñi amagulit yal na leen jox ay place jigéen ñi yal na leen yàlla may ay borom kër te déggale leen ak ñoom jox leen seen diggante ñoom ay njaboot du lislaam borom kër yi yal na leen yàlla may xol bu ñu jàppandale yor ak wërsëg wu leen yorle bi jaayi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam am na benn waay bu sant siise mas naa ñaan ñaan googu ci mbooloo ñu génn mu naan ma yow jigéen ñi rek ngay ñaanal ñoom jëkkër doo ñaanal góor ñi ma ne ko da nga cuune rek te sant siise bi ma ñaanalee jigéen ñi laa ñaan naale góor ñi parce que jigéen ñi jigéen ñi du leen takk jigéen ñi du leen takk jigéen ñi kay yàlla ñu am jëkkër góor ñi dugg na ah may ma dafa déggul rek yàlla may tànk yu féex nga àgg fa du aay ndollante rek lay doon ah ah mbooloo bu ma tee ñeen fukk foog ñu baal ca kenn buñ ci mbaalee kenn baal yi ci des ñëpp képp ku dégg xew-xew ne duma ca dem boole wuñ ma ca cuune nga ndax yonent bi ne na am na kanam yoo xam ne ku leen gis doo lakk gis nii rek waaw boo ko gisee rek waat naa ne loo mën a làmba doo lakk te kanam yooyu ngi ci kanam yi waaw sooy def nag bu ñëw nga ne duggi duggi du ñëw gën a duggi yépp a jeex ba mu romb la lool la lool la ni'ma rafiqu laqad sawa makana makhilihi وقد نام تحت شعر ظلام لا ولا ليانا وبالات القلب فاتما تلك المثابات لا يبعى ولا بيانا ما ما لم يفهم تزهر بالحمام تزهر بالحمام نعم الرفيق لقد سوى مكان مخيله وقد نام تحت صخرة الأمم صلى الله تعالى عليه وسلم daan naa wax ne ku yàlla baaxalul it te baaxe la nga jël ku yàlla baaxalul te baaxe la it boo ameem xel sant baaxal la nag bokkul ak baaxe la mën na laa ñàkk a baaxal te baaxe la yàlla ku mu baaxal day doon jaam boo xam ne day dogal ca ba mu koy bind ne du ko mooy ba ilaa yomal xeex loolu la koy loolu la cay dogal waaw su ko defee jaam ba lu mu am moye moye moy ak lu mu bëgg-bëgg moy du mën a moy ndax bindaale wu ñu ca bañ koy bind dogaloog moy kooku la yàlla baaxal ka mu baaxe nag mooy ka mu bind cig moy fexe ba kooka mu bind te du moy nga xamanteeg moom soppa ko mu néewal ko doole jox la doole nga di ko dimbalee sa doole kon bu la baaxul it baaxe na la defaloon nañu loolu ku ñu wax Ababacar Sadiq radiyallahu taala an jaraaf ju ne nag jaraaf yàlla jooma sa gis ñaare doole ji day néew waaw waaye foog mu tàggatal ko ku mu baaxe ku mu jox wërsëg soppaloo ko ko lu mu soxla mu defal ni Ababacar ak Moustapha alaaji malik nee na ni'ma baax na ñu ne Maodo kan mun a rafiqu sidi abi bakrin tudda na baabak daa nañ ko wax abubakar sadiqi di ko wax abubakar a atiq daa nañ ko waxit rafiq moustapha mas naa def invitation téere dañu d'accord ne bépp jullit bu oo mbokkam jullitam liggéey lu ko lew togg kaw ñam mu fekk si ko sa kër sa jabar togg ko mbaa koo ilif nga wàññi sa bopp ngir bëgg yàlla ba alternative ba sexal ko sa borom dina araamal sa yaram safara ne bi nag li muy mucc mucc lu mu mus a dégg ne ku ko def mucc mbaa mu xam ko xamle ko foog mu def ko mos maa def invitation toogloo saaba yépp togg a ñam raxas loxoom lu tedd loola na ca cas benn tibb daal di da na ca cas benn tibb sexal ko Seydina Omar mu sàqar mi mu tibbaat sexal Seydina Ali mu sàqar mi woon mu tibba sexal Seydina Ousmane mu sàqar mi woon mu agsi ci Abay Bikrin tibb sexal ko mu sàqar mi woon na mu tibbaat sexal ko mu sàqar bi woon na mu tibbaat sexal ko waaw waaw kenn du ma saaba yi ne ko lu tax ku ne benn Babacar ñett mu ne dama tibb tibb bu njëkk sexal ko dégg Mikaayil ne ni'ma atiqu ma sexalaat ko dégg Jibril ne ni'ma rafiqu ma sexalaat ko sun borom ci boppam ne ni'ma sadiqu kon ñetti tur yi baax na Abi Bakar Sadiq Abi Bakar Rafiq ak Atiq Rafiq nag mooy àndaale àndaale moo ëpp dool àndandoo àndandoo da nga koy dab mbaa mu dab la su ngeen àggee fa ngeen dem tasaare àndaale nag dina ne ba ma ko sax nga toog fii te muy àndaale an sa àndaale ba bokkul ak an sa àndandoo bi Baba Abakar nag passé woon na saabu rafiq la woon àndaale la woon ànda nag nabi ba ci sëreetul muntaha njol màkk ba mu bëtt asmaani juróom-ñaar baag sëreetul muntaha te jibril di dellu gannaaw te moo ko doon jiide nabi daf ko ne abi misli haada yatrukul xalilu xalilahu abi misli haada yatrukul xalilu xalilahu place bu rakloo nii place bu wéete nii place bu dawee yaram nii xarit néeg na faa bàyyi xarit jibril na ko du sama sago sañatuma paase benn jeego rek bu ma ko paasee te leere araf lakkama wa ma minna illaa lahu maqaamun maalumun buy naa leneen musaafuun buy naa leneen musabixoon suñu borom door a wax na bi adum mi nii jegeñ si jibril def mu naan ko jegeñ si jegeñ si bu nekk dog na juróom-ñaar fukki junni kiiraay kiiraay bu nekk talaay dox juróom-ñaar fukki junni at la waaye nabi na na dem naa ba fa ma yem di dégg baatam Ababacar sama kanam Ababacar demu fa woon naa waaye comme place ba dafa raklu yàlla xam ne bi Ababacar rek kay wéttalam mu naxe ko baat ba rek muy jib ci kanamam pour mu ñemeñ boo bëggee jàpp xar mu faraw da ngay wut leket def ci pepp mbaa dara di ko ko yëngalal kon nag baatab Ababacar la yàlla defoon nag pepp di ko yëngale nabi sallallahu alayhi wasallam pour mu ñemeñ adara ba ba ni mu wàññee ko rek baata Ababacar a ngi jib ci kanam waaw góor yàlla na ko yàlla yombalal wërsëg yombalal ko jullit yépp bi jaay rasulullah ku ñuy wax Mamadou Taal est-ce que yàlla na ko yàlla yombalal taal jërëjëf alxaaj mbaay yàlla na yàlla yombalal wërsëg boobu yooyu koppar kenn du la yokk moom ci yàlla ana la ma la joxoon nga ne ko jox naa ko nabi gisement bu gàtt lay doon waaw du yàgg du gudd joxale ko téeméer jërëjëf yàlla na ko yàlla yombalal da oromati fee di wujjoon jàllo ah waaw dëgg la yal na ko yàlla yombal téeméer yombal ko jiw jot si daxaaj Malick nee na ba Babacar toftalee njool màkk ñu génn màkkatal mukarama dëgmal medinatul munawwara ala saakini hoo afdalu salaatu wassalaam xëdit la ñu indu fanaan xas faan ñu njëlu ci ëllëg reeruñu dox ba njolloor ji tàng Ababacar dawal bëtam kendal jot njonox laa ngee tàkk jaxaay yaa ngee sab wuyu yan càll bi yor ay jaasi di rëbb Moustapha moom moom dong ak xale yi leen di gunge mu gest ndey jor gestu càmmoñ seen genn garab mu rëppatal jëm ca garab ga Moustapha sii wër ko ba ñàgg ci taati garab mbooyu maa ngi tàng lool une heure vingt à peu près mu tekkil Moustapha yeew tànki jileemam nga dëj ko dal di yóotu taati garab gi fab loxoom yu tedd yooyu xam nga nawle bu la magul nga ëpp ko wërsëg antan koo joxe noonu sa bopp dafa jafe waaw Ababacar dañu wax ne téere dañu wax ne dara gënu la jafeñ maaseeg wali yu jariñu ca déedéet ñaare kalay jariñ dalay mag parce que bu maaseeg yow day am yoo xam yuy war a mën a tax doo ca mën a jariñu yoo ko xamal yu lay gàllankoor ba doo ko mën a bëtt jariñu ci moom moo tax maaseeg wëli yu jariñu ci jafe abéeg na béeg Ababacar presque ay moroom lañu ñaari at la ko mage ak ñaari weer ak juróom benni fa ah suñu borom dogal nga tolloog noonu nit mu ëpp la wërsëg toll ni yow judd ci zahir nga jébbale ko noonu sa bopp di ko tarbiya tarbiya yu toll noonu naka la tekki rek dal di xool garab gi fab ay loxom fàkk fu nekkoon pax mu sànni fa suuf fu kon fu koy woon mu tëral ko ba mu paase ba mu maase neer am nañu ne mbubbam la futti lal am nañu ne farwata der bu mu yoroon bu ñu wulli lalalal Moustapha gestu seen ngeganaay gestu seen ngeganaay seen xeer wu weex tal wu palaata jekk mu dem fab ko faxas ko sumi mbubbam lalal ko ca teg ci boppi Moustapha naj tànk ya ndànk naj ko ndànk dawal bëtam ci moom ba nëbbi gëmm tànk bët mu mu mu sampa tànkam génn taati garab ga ndànk ndànk alaaji Malik ne nii am ma baax na rafiqu gii gor laxat sawaa yemale na ba mu yem màkkaanam na xiil yi place ba njool màkke jële sest waxat naa moom moo taxit Moustapha nelaw na ta ta saaret ba nabi nelawee dafa sampi tànkam yoot ndànk génn taati garab ga na meŋ Maodo ne na xam naa fa mu demoon xam naa kañ lay dellu si xam naa it la muy indiwaale ñu ne lan la ñaanale Moustapha lu mu tooyalam putam mbooya maa ngi ël ëli li ñu yor ci bagage li ñu yoroon ci bagage yépp jeex mu yéeg seen benn sàmm buy sàmm mu langaan dogale ko ne ko ndax dooma dimbale ci lëf ci soow mu ne ko bu la neexee dogale benn gàtt jàpp ko mu ne ko faxasal say loxo ci sang la jëm mu faxas loxo ya Ababacar ne ko faxasal ma yenaatu gàtt mu faxas yenaat ba jonkan ronu ko bipp ko ñaari yoon mu jébbal comme soow mu daw ak moom ak si juste bi muy dugg taati garab gi fekk Moustapha fudd mu jóg dëju xam nga nelawam daawul nelaw alaaji Malik ne waxat ata retourné si ne moom Ababacar indiwaale kus bëtën min la bani ñu ne fu mu ko jëlee mu ne wa jaali bu aji propagande la aji maslante la aji naqante la aji jëndante la zaaka la fa soow soofu min raayina ala xanani sori na dafa sori dafa sori naka la nabi yeewu mu jox ko soow ma mu naan mu ne ko gont jot na ñu teg ko mu teg ko ci gileem ga ñu daal di konta dem alaaji malik ne ba jant bay songa tàkkusaan la ñu juux ci kiima lay bëgg a wax ñu ne koo koy kan mu ne lan أم معبدا أم معبدا فات الشاطي سلها إن أضافت الرسول بآم الجد وبفات الإذم ما بابا يعمل لك يلا يوم بلد يوم بلد كجرد يب يلا يلا باركل جيجين ني سين سارا باركل غور ني سين سارا barkeel waa Sicap seen sarax rappel tardé ngeen allah ji yugo foo nekkoon gisuma leen keroog waa ji bi ma joxee sarax bi dama ko doon laaj ci daf ma ko jox moog ma baaba alors mu jox ma ko nag xool ma bu baax ma ne ko loo doon mu ne géwél ah yugo daan na ko def bu baax a baax daan na ko def bu baax jaay yàlla na ko yàlla yombalal bi jaay rasulillah ma baaba daf ma ko jox rek dem moom mu des fi ni ma niin ma ne ko loo doon mu ne géwél ma ne ko kon dinaa la ci jox mu jot ba ba muy sàngoo suuf di ma ko jox bu soobee yàlla yal na yéex waaye bu demee ci suuf xam ne lebal na ko ku mën a fay bés bu ñëpp bokkee néeg ñëpp a yem ak néeg kenn ku ne pantare bàmmeel ngay am malaan mi ñuy sàngoo di benn du jaay fenn muy suuf xam nga dinañu toog yi ba bokk ab néeg borom néeg yi ñaxa borom état sax borom taax borom seng ñépp bokk ni ku ne am pantare bu tudda bàmmeel bépp amul kër moral amul kër sukaay amul mbàjj mu nooy amul sëriñ jar ñépp rek suuf la ñuy sàngoo bu boobaa ku nee ku yaataloon sa néeg keroog mu yaa ku noyaloon sa malaan keroog mu noy yàlla nu yàlla boole ci ñooñu bi jaay rasulullah yàlla na ko yomb ba faw te yàlla na ko yàlla dolli suguru say uma mahbada uma mahbada laa wax de sëriñ gi Abdou Khadre yaa ngi ko sal uma mahbada uma mahbada saatu suuti salha ina adafati rasulallah bi amil jadbi wa bi saati zil adami la ilaha illallah li sa jóg faali ana ana gaa yi ñu ngi ci ginnaaw bàyyi bu ñu dara dara jeen jëf ñoom ñoom ñoom alaaji malik nee na boo bëggee xam dëgërey na bi ci yàlla yow mi ko sopp sal na nga laaj laajal ndaw suñuy wax umma mahbad dafa amoon doom ji ñuy wax mahbad waaye aatikatu la tudda laaj ko ba nabi dox ba tàkkusaan mu juux ca këram nga par ñett par ñeent ak déglu tuuti dégloog joxe waaw nit mën naa joxe te du wax ki gën a yàq nag mooy kii wax te joxewul ki ki joxe sax te waxaale mu ne na koo xaw a muñu joxewul dara te wax sabaru toogal waaw tigi tigi laajal umma mahbad ba Ababacar ak Seex Moustapha lamboo xiif na bee ko wax ci boppam na ko laajal borom tant bi ndax lu munu gën a lee nekku fi Ababacar bàyyi Moustapha ñëw ci umma mahbad na ko ndax defe loo fi dara loo mën a àggalee gan yi door a ak mu ne ko dara mu ne ko làmbal mu ne ko dara desu fi mu dellu si wax ko Moustapha na di dawal bëtam seen benn benn gàtt bu tëdd mu ne ko nee ko nanu may permi ñu rata gàtt bële mu ñëw wax ko ko mu ne ko gàtt bi loo fa tax sàmmiwul biirul jurul doom ñàkk mën a taxaw ci jo yooya tax sàmmiwul mu ñëw wax ko ne bi ne bi ne ko dellul nga ne ko mu may nu permi ñu ratta ko mu delluwaat wax ko ko mu ne ko yow de doo dégg wala danga ma gëmul gàtt bu ëmbul amul doom néew doole ba mënula dabi gàtt yekk tax a def nañ koy ratte mu ne ko ki ma ko wax kat mu nga lee toog moo ma ko yónni da nga ko waroon a may ndigal mu ne ko gàtt baa ngoog bu ngeen ko mënee ratt mu ñëw wax ko Moustapha sallallahu alayhi wa sallam na ñokket gàtt ba na ñokket na bi waaxu jegeñ ko mu ràcc tànk na ko la ndoof loxo ba rek soo mën a sareet mu laaj këll ratt ko ba mu fees na Ababacar joxal soxna si mu naan soxna si naan mu ratt ba mu fees na Ababacar naanal mu naan mu ratt ba mu fees naan ratt ba fa ñu noppal jox ko ko jox ko sa ngeen di sore la dox taxawal tuuti